daanaka léegi d'après li nga yëgee nouvelle nouvelle bi. waaw ban yëg-yëg nga ci am. sant yàlla. gërëm yàlla. sant yàlla gërëm yàlla. sant yàlla borom bu baax kii yooyu juróomi yàlla sant doomu aadama yëpp nag. daal wax naa ko ko démb. nee naa ko lii leen dal arrivé la depuis lundi ba léegi. mbedd mi fees dell mel ni dafa am lu ko wax nitu. autorité wala ko xamante ne borom milliard la ken dootul lek ken dootul nan bee bo lo demone fukk doomu aadama bi wax la. waaw man man ak yaayam ñu bokk ben bay bu ñu waaw mais nak limo wor wóor wor moy mooy mohammed mbekk gi ma am ne ko xam sama ànd yàlla xam na ko mais li ma la waxoon saa si kii rek li la wax rek état bi dañu dugg ci lii wax naa la ko sank ci biir wax neena la dañu dugg ci lii parce que li dafa ëpp. yooyu diggante bi nga am nii ak ak yu yi baaxul yéen nag yéen mention spéciale parce que yéen a mujj ñu leen di jaawate tey donc vraiment mu ngi sama sama mag la ñoo bokk ndey ak baay waaye ñu doon ñaan yàlla Amin, amin. na ko yàlla nit amiin amiin dina bu ci dara yàqu na bu ci dara yàqu lépp lu rafet rek nañ ko jiital ndax dëggandoo jàmm rek ci gën a kontaan jërëjëf yaay booy soo sët bi tegaguma ko bët tegaguma ko bët waaye yaakaar bii bi ci am ak wax jéem ñu maam wax ni ñëw gis nañu ko ba indi nañu ko yàlla naa dund ba teg ko bët te mu ànd ak wér ak wér leen fekk jàmm ak salaam wér ak wér ji ma am sama njaboot gii ci li ma jural luñ ma jural fi yàlla saxal dànk na àllaa ku dam gërëm samay bokk maa ngi gërëm samay dëkk maa ngi gërëm ku ma xam ku ma xam jullit ak ku dul jullit ndax xale bi bu mu demee ba léegi kenn too noppalu ko kenn kile te kenn wéetalu ma kenn seetaanu sama bokk yaa ngi woote téléphone ba bëgg a samay bokk yaa ngi woote téléphone ba bëgg a dee samay bokk yaa ngi dugg di ñëw di yendu di fanaan jërë leen jëf jër jëf yàlla sama sët bi nag tegaguma ko bët de waaye maa ngi yàlla ñaan yàlla ma teg ko bët te mu ànd ak wér ak wér mais nee leen gis nañ ko mu ngi police ah gisuma de gisaguma de dégg laa si am bàyyi ma bàyyi ma

빠른 거예요 빠른 거예요 Thank you.